ci góor te dee tax nga doon vainqueur bañ a doon yu ñu commencé waxtaan bi euh, Awa Diop ak euh, li nga xamante ni euh, tiis la naqar la bu daloon ji seen mbokk taskatu xibaar muy jigéen aussi ni yow bëgguma sax wàllum genre bi mais même noonu fay lu ko daloon dañ koy masaw bu baax a baax. voilà dañuy delluwaat rek semaine bi yëpp comme ni ñu ko defee di ko massaw tout le temps mm-hmm. di ko massawwaat bu baax moom MNF di massaw ñëpp ñi nga xamante ne ñoom la àndandool foofu. ca 7TV euh, di liggéey ak ñoom ñu leen di euh, mastaw bu euh, baax a baax mm-hmm. comme ni nga koy wax wàllu genre dañ koy bañ di wax di ndax loolu day méngoog da ngay doyadal jigéen wala da nga koy tuutal wala da nga koy suufeel mm-hmm. te je pense pas que c'est ce qui est mm-hmm. au surtout au niveau des médias yaakaar naa ni tey jii jigéen ñi ñu ngi wane seen bopp bu baax au niveau des médias ñoo gën a nekk au devant de la scène soo gisee sax sur les théâtres d'opération tey jii jigéen ñi ñoom ñoo fa ëpp doole ndax tey soo gisee Feuz John nga gis euh, Ngoné Saliou Diop ñooñu da ngay xam te ne ay jigéen yu mën góor lañu. Feuz moom daal téye caméra am ba ba te xam nga pataal woon. ba benn boule de neige la woon. <laughs> bàyyil Feuz <laughs> bàyyi bàyyi ni nga nekkee. xanaa kon man boule de neige la non non non mais non léegi léegi dama topp terrain bi topp Ousmane Sonko ak événement Sonko yi ba instant yi nii boo gisee day njuxul jigéen quoi. mais soo leen gisee tey jii xam nga dootuñu ne information yenn yi su amee sax dootoo ne xaaral ñu xaar euh, reporter yu góor yi non non da naan xaaral ma daw page yu ngóone wala ma daw page yu feuse <laughs> loolu rek ça montre à suffisance tey jii dayo bi nga xam te ne jigéen ñi am nañ ko ci ëttu taskatu xibaar yi looloo tax capacité euh, indignation bi amoon keroog bi ñu songee ki nga xamante ne moom moo di Maimouna Ndour Faye on attend euh, li nga xamante ne moo di enquêtes yi ñu diligenté ko déjà mais ñu koy massaw te loolu day posé waat la question de l'insécurité pamata à Dakar te yemootul Dakar rek biir àll bi sax ñi ngi casse insécurité boobu te insécurité bi nag suñ koy casse tout le temps moom moo di ne on voit tout le temps ñu ne la armée bi s'est dotée de tant de moyens la police la gendarmerie même le président Macky Sall tout le temps suy targué wu danaan def naa temps ci li nga xam te ne moo di nos forces de défense et de sécurité chaque 4 avril nga gis mu am démonstration de force et pourtant la sécurité mais est extraordinaire à Dakar et environ mhm. léegi force yi fan lañ ko concentrer la sécurité des personnes et des et de leurs biens fan lañ ci tollu loolu yëpp moom mooy indi defe naa ne à chaque chose malheur est bon cette euh, agression de Maïmouna Ndour du lu ñuy rafetlu lu ñuy ñaawlu la di ñaan ñu gaawantu diligenté ko te yàlla fëgg boppam ba mu dellu si waat ci liggéeyam toog ci plateau yi comme li may wax rek on peut avoir des avis divergents mais ça ne donne à une personne mu am benn cong bi wala benn maltraitance wala yenn propos déplacés yi sax di am suñu naan liberté d'expression suñu naan démocratie également c'est ça que idées yëpp bañ a converger ku nekk am sa idée et on en discute sur des plateaux defe naa moo gën ñu ciy discuter discuter ci ay violence ak ay euh, ay biceps ak yooyu mi ngi ñëw léegi c'est bon euh, da ñaaw lu di condamné li nga xamante ni mooy euh, li dawal suñu concert bi may mun doon du fay évidemment bien bien évidemment euh, dañ koy dañ koy ñaawlu bu baax euh, di ko condamner euh, vraiment keroog bi mu ko dalee peut-être suba si bi ñu xëyee peut-être réew mi yëpp ci loolu lañ ci loolu lañ nekkoon on a condamné ça mais man li ma ciy retenir rek comme Awa Diop mi ngi koy wax léegi les femmes ont vraiment pris le pouvoir ci ci ci ci presse bi mhm. ces derniers ces derniers temps moom Maïmouna Ndour Faye on rappelle que c'est c'est quand même la première femme boo xamante ni patron Euh, de de de d'un média oui. au Sénégal euh, quand même c'est à c'est muy jàmbaar dëgg il a fait il a fait du chemin quand même euh, mi ngi doon wax léegi tudd ay ngoone Saliou Diop mhm. ak euh, Feuz Dione c'est c'est c'est vraiment des reines de l'instantanéité mm -hmm. ñoom jël nañ li nga xamante ni mooy réseaux sociaux yi vraiment utiliser ko pour informer à temps réel ñi nga xamante ni ñooy population yi parce que léegi wax na ko léegi bu événement amee bu njëkk ba da nga doon xaar rajo yi di diffuser di joxe ay information à temps réel wala télévision yi mais léegi Euh, il suffit nga am sa portable ak sa connexion nga dem ci page Ngone John wala nga dem ci page Bour News mi nga xamante moom moom vraiment moo révolutionné mhm. li nga xamante mooy mooy culture instantanéité boobu sur le terrain surtout muy ñoom ay femmes yoo xamante tooguñu rek ci bureau di kii mhm. dañuy dem sur le euh, terrain mhm. braquer leur caméra avec tous les risques nag qu'elles encourent ah ñu leen di dóor ay gaz lacrymogène yenn saa ñu brutaliser leen teelee kii donc ma leen may profité ci occasion bi leen rendre hommage euh, di massaw encore une fois euh, may mun Maimouna Ndour Faye mais tamit mm-hmm. euh, li ma li ma li ma li ma li ma ci rafetluwul mm-hmm. mooy on en a fait trop tôt une affaire d'État maanaam république bi yëpp jóg jël baaraamu tuuma mel ni joxoñ ko ci benn ci benn ci benn parti politique wala ci ay partisans Euh, te mu doon loo xamante ni rafetlu wu ma ko donc dès les premières heures après euh, de la matinée euh, on a vu le porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana faire un tweet mm-hmm. di wax ni c'est une atteinte à la liberté de presse alors que on ne savait pas à l'instant Mmh. quelles étaient les motivations mmh. de celui ou de celle qui a agressé Maïmouna Ndour Faye mmh. loolu kenn xamagu ko ba léegi sax kenn xamagu ko euh, ñu gis président tamit la république mu def benn tweet di wax atteinte euh, la liberté de la presse di tout euh, ci vraiment joxe ay garanties dem na sax bay joxe ay garanties ni journalistes yi dañoo war a liggéey ci environnement boo xamante ni dañu nekk en toute <laughs> sécurité loolu mu mu def ma mu xaw moo mu xawoon ma def ay retaan tuuti parce que foofu la ñu brutaliser suñu consoeur euh, Absa Anne dóor ko ba mu perdre connaissance ba dañ koo mujjee yóbbu euh, urgence te man gisuma woon euh, nu mu tuddati mobilisation bi confrères yi def keroog vraiment def ko ñëpp jàpp ni c'est une atteinte à la liberté de la presse alors que les alors que les premiers éléments de l'enquête wanewuñu dara lu jëm ci boor boobu loolu daal laa xam ni ñaawlu naa ko ci mm-hmm. te doon ñaan itam euh, nu mu tuddati euh, organisation de presse yi. à plus de retenue. effectivement bañ a a dugg ci euh, le jeu. des politiques bi nga xamante ni dañoo ñëw politiser. récupérer récupérer agression bi mhm. politiser ko mhm. alors que premier élément d'enquête libération bi mu ko génnee le samedi ñëpp gis nañ ko benn source A A même si après ils ont retiré ils ont retiré le journal vers deux du matin ah libération a rapporté que benn sàmba booy moo ko kar buntu këram ñoom ñaar ñuy xëccoo saag bi mu jam ko ci loxo te boo gisee euh, boo gisee tamit fee yi nga xam fee ni mu demee ci loxo lañ ko jam. Mhm. Euh, ku ñu jam ci loxo day mel danga doon xëccoo dara ak agresseur bi loolu taam nañ koo gis agresseur bi pour vraiment am prise ci yow mu jam si loxo pour nga bàyyi saag bi après mu daw ak moom te gis nañ tamit ni euh, xaalis bi nga xamante ni moo nekkoon ci biir saag bi mu toll deux 2 millions agresseur bi da koo. da ko yóbbu euh, donc ñi nga xamante ni ñëpp crime politique la ñu waxoon wala affaire d'état je pense que bu enquête yi génnee euh, amalaat nañ askan bi euh, ñëwaat leeral askan bi ni lii du woon ay du woon ay du woon ay yëfu yëfu politique d'accord duñu ci yàgg Awa Diop mais quand même dégg naa ci ay candidats sax à la présidentielle Euh, kenn ki di wax di di ko garaawal naan ah, réew mi léegi da wax sa xalaat ñu jëm la paaka euh, quand même euh, nga def preuve de retenue surtout nag bu nekkee da ngay bëgg jiite Sénégal du da ngay dégg tëll rek ni damm na. mais propos yi njëkk gi c'était propos purement politicien. Mhm. et récupération politique lañ ci def ñoo xamante ne en mal de notoriété mhm. ñoo bëggoon langaamu ci yenn yi mhm. pour redorer waat seen blason mhm. or c'est peine perdue comme oui. je tout le temps rek nu Sénégal dañu toll ci degré de maturité boo xamante ne fi mu nekk nii on sait qui est qui et qui fait quoi dama ko yàgg di wax soo xoolee vidéo boobu c'était devenu viral bi ma naan le président Macky Sall amel nañ ko benn njukkal boo xamante ne moo di il nous a ñi nga xamante ne c'est les euh, ennemis moom de sénégalais oui. les ennemis de la nation les ennemis de la république mhm. mooy ñi nga xamante ne seen intérêt crypto personnel moo leen ñor le président Macky Sall nous a rendu un grand service wan leen à visage découvert mhm. ba nga xamante ne ñooñu tey jii suy dem mbalit googu yëpp da leen di yóbbaale mhm. et c'était ça le kii mais waruñu focaliser aussi tell ne damm la kilifa sax warul réagir noonu kilifa de surcroît koo xamante ne moo nekk institution bu gën a mag ci réew mi. Mhm. waroon nañu am un peu de retenue un peu de mesure mhm. par rapport à cette information la mais surtout soo xoolee Pamatar lu tax mu am benn indignation bi si yenn Sénégalais yi sax nga xamante ne mhm. après dañ jeter le discrédit si ñooñu moom moo di ne y a eu combien d'agressions dans ce pays effectivement y a eu combien de meurtres on n'a jamais entendu ces autorités là s'indigner mu jaxal leen yenn ñi. li ñu doon miroiteloo gaal gi chaviré baal ma euh, gisuma kenn ku déplacé wu dem fële ca Guet Ndar euh, dégguma ci dara dafa mel ni en fait ñooñu seen bakkan dafa suufe par rapport ak bakkan aw Diop bien avant loolu les événements de mars les événements de juin les événements de ces dernières années y a eu combien de morts y a eu combien d'agressions effectivement amuñu benn ressenti boo xamante ne nemmeeku nañ ko ci ñoom pour ñu mastawu askanu Sénégal mm-hmm. imaginez les événements de mars les événements ñi fi mujjee deekat yi le mm-hmm. président kañ lay doog a baalu askan bi keno bi muy jàkkaarloog taskatu xibaar yi mm-hmm. deux ans après Sidiki Kaba était montré monté au pour nous dire que ne dinañ diligenter enquête information dina ci am mais que ne ni jusqu'à présent absolument rien looloo tax bi ñuy monter au si di mhm. man pour man ce n'est même pas rendre service à Maïmouna effectivement ce n'est même pas rendre service à Maïmouna parce que dinañ ko coller benn étiquette boobu boo xamante ne nekkul mhm. tooñ kay nañ ko def sax waaw këñ mhm. de ce fait man pour man kilifa kenn du ko gàgganti ci mbedd dañuy am retenu un peu en war nañ ko moytu bu baax a baax